salaamaaleykum man la Souleymane Ciss man lañ dénk euh, commission infocom bu Mbour bu ëttu Maodo bu Mbour waaw macha allah niñ ko jàngatee mooy nit ñi ñëw toog deux ans ñëwuñu Tiwaawan ndax lu yàlla dogaloon si feebaru bi ñuy wax Covid 19. léegi tey jii nii ñëpp ñëpp a jógee Sénégal si bépp si dëkk yëpp ñëw fii nii ndax dañoo namoon Tiwaawan tegu woon si ay ndigalu sëñ sëñ sëñ sëñ Mansour Aboubacar si tey jii nag ñu ñëwoon ku nekk pour fu nekk daal ñu daal fi ndaj fa pour ñëw fii ni ziar si moo tax mbooloo mi takkoo nii macha allah waaw feeñ na si kanam yi feeñ na si dëkk bi waaw. waaw gis nga de convoi bi ñu doon xaar suba ba tey sax ñoom ak seeguñu waaw sànq lañ ne ñu ngi dugg si biir Tivaouane waaw boo xoolee lool ñun bi ñuy ñëw sax démb si guddi. am na convoi boo xam ne exceptionnel boo xam ne dafa taxawoon si si si yoon bi pour wax la ne nag ku nekk waaye mu fay jóge instant bii nii pour ñëw fii nii euh, Tivaouane ndax gëj nañu gëj nañ fi namu nañ ko euh, namu nañ tamit kilifa yi waaw loolu loolu daal lañ ci seetlu. waaw sama sama mbokk ndaw yi nag mooy réseaux sociaux tubaab bi da koo defar ngir lu baax mais bu fekkee ne ñun tamit dañ see nar a dañ see nar a nar a jaare yàqu du loolu mooy objectif bi.

kon dañoo war a dem jàng ji xam-xam uti xam-xam am ko ngir mën a téye téye téye téye li nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko nañ ko fi bàyyi parce que bu Bousso bi réeree suñuy loxo dina ñaaw trop te ëllëg kenn xamul lu muy jëm waaw xanaa am mbégte rek nekk ndaw ñëw fii teewoon di sa liggéey waaw parce que mënoon nañoo fekk ñun def leneen wala ñu nekk si leneen defuñu ko nag dañ si am contentement waaw buñu fekkon heure bi ñu nekk ci ay waykat si ay ay ay bar wala ci ay yo xamne dal place bo xamne waru ñu fe taxaw loolu suñu wéy yu duñ ci taxaw dañuy sante yalla nak ba fekke na tay ji mu ngi fekk ñi liggeyal euh tarixa cheikh bi nga xamne ne lañu bok yalla yalla nangu ñaan yëpp ñaan yalla suñu ziar nangu ko si jamu aduna jàmmu àdduna assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi sant bur yàlla suñu borom bi subhaanahu tabaaraka wa taala te moom rek moo jara sant di ko sant moom mi ñu may ñu fekk bis bi bis bi nga xam ni mooy bisu Cheikh Ahmed tiijan Chérif radiyallahu taala anhu di bisu Cheikh Omar Foutiou Tall di bisu Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ak doomam sëñ Babacar si sëñ Mansour si àlaa jab di sëñ Mansour sëñ Cheikh Tidiane si àlaa jab ba ci sëñ Babacar si Mansour mi nga xam ne ginnaaw yàlla bis bi bëggoon nañu ko soppoon nañ ko te yàkkamti woon ko ndax da di bisu seex di bisu kullu doomu adama waaye di bisu kullu jullit di ñaan yàlla bis bi yàlla bu mu suñu mujj bis ñaan yàlla bis bi ni ñu ko fekkee aaju bu way andi yàlla na ko yàlla nangu te fay la ko ñi nga xamante ni bii ñoo téye tarixa bi ñi nga xam ne ñoo nekk tarixa bi li ci kaw ba ci Seydi Hadji Malick ba ci suuf ba ci sëñ kër Sy yal na yàlla yàggal taxawaayam te yàlla yàggal ko fi te wéral ko te suturaal ko yal na yàlla may ko ak wér ci cëral ko ak njabootam ak i rakkam ak i magam di ñaan suñu borom bi subhanahu tabaraka wa moom mi nga xam ne moom rek di sant waa télévision yi média yi ndax yéene jàllale xibaar yi te yéen ñi jaral jàllale xibaar te jàllale xibaar yal na leen yàlla fay aw yiw yal na leen yàlla taxawu yow mi nga xam ne yaa yor média bi yor micro bi yal na la yàlla taxaw ba li nga naal ba li nga bëgg sa digganteeg sa borom yal na la ko yàlla fay fay li ko aw yiw àlla kullahan di wax ndaw ñi nañu delloo suñu bopp ci yàlla te liggéey te góorgóorlu te xam ne adduna liggéey doyloo yàlla wóolu ko rek moo fi nekk ñu bañ a tooñ te gëm diina ji ndax diina ji amul morom tey bàyyi média yi yu ñaaw yi nga xamante ni bii ak yi bon yi nga xamante ci moo fi nekk di te xeer te ñu jubóole ak état bi bokk ak état bi te xam ne état bi ñun ñooy ñoom ñooy ñun ñu ànd bokk ndey bokk bay te jubboo te xam ne kenn ku nekk mënul dem bay sa morom te ñu yéeneente jàmm te xam ne yàlla rek fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa am maa ngi jógee ba dakaar dëkk bu ñu naan Pikine waaye maa ngi dëkk dëkk bu ñu naan Bissau maa ngi leen di nuyu te di leen baalu ak maa ngi tudd Papa Diop dëkk Pikine soti ba waaye sama cosaan mi ngi. mbisaaw sama yaay sama papa foofu la ñu juddoo asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf jërëjëf